مولد خير المرسلين أحمدا وادعني العام والدر أحمدا حمدت رب العالمين أبدا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 wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida axyaytu mawlida nabi min asasi wa qaada fawqa almuna fi talshasi salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Muhammadin Muntaqa xafisahullahu taala wa raahu ak mboolem njabootu cheikhul xadim gépp noo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di ci teg njabootuk maam Ibrahima Fall gépp ci njiital Serigne Modou Menda Fall mi fi toog jataayub Cheikh Ibra ku gis jataay bu tedd bi ak woote bi nga xamante ni moom la ñuy woote nga xam ni ñu koy woote mooy diwaanul manahilu saafiya ci njiital Serigne Cheikh Silla kook mbooloo yi nga xamante ni moom lañ baaxoo di ko àndal at mu yàlla sàkk ba liggéey bi sosoo ba léegi tàmbalee ko ci daaira tasawru subaan naka noonu daaira tasawru subaan bu sëriñ Mamor Mbàkke bu Cheikh Mouhamadul Mourtada ci njiital sëriñ Naar Touré ak daaira makaarimal axlaax ci njiital sëriñ Moussa Dieng ak soxna Daba Ndiaye naka noonu tamit daayira safinatul amaan ci njiital sëriñ Bamba Sène ak sëriñ Papa ak mboolem daayira yi nga xamante ni ñoom lañ ko daan baaxoo di ko àndal te dëkk ci gox bi yëpp noo ngi leen di woo ci bis bi nga xamante ni bisub jullit yëpp la waaye di bisu murid yi rawatina ñi dëkk fii ci Medina Fall waaye di ko defee nag ci keppaaruk maam Cheikh Ibrahima Fall ci mbaar mii nekk ci penc mi waaye ñu koy def ci keppaaru sëriñ Modou Menda Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall su ko defee nag jataay bi ku gis ni mu tëddee rek loolu moo lay wax ni nga xamante ni noonu lañ ko fa yéene séddale danañ jox kàddu gi sëriñ Cheikh Sylla mi nga xamante ni moom mooy jëwriñu diwaanu Manahilu saafiya mu woote naka noonu dana jébbal kàddu gi sëriñ Malick Diop mi nga xamante ni moom mooy jël kàddu leeral programme gàmm gi yëpp ni muy tëddee ndax ku ne xam na ni gàmmu sëriñ bi dafa sàkk woon ñu def ko dëppale ko ak sunna mooy tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati loolu nag moo tax lu ñuy def dañ koy def di ko dëppale ak sunna loolu sëriñ Malick dina ci ñëw ci lu yaatu waaye naka noonu tamit danañ jébbal kàddu gi sëriñ Basiru Jeng mu woo mbooleem dawaayir yi nga xamante ni ñoom lañu bokk nekkal Cees ak mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi ci dëkk bi dib taalibi suñu noppee dinañ tëjaat jataay bi niñ ko ubbee ci njàngum xasida ak Serigne Ousmane Diop mi nga xamante ni kenn la ci liggéey bi kon su ko defee ñu jébbal kàddu gi Serigne Cheikh Sylla jëwriñ diwaanu Manahilu Safiya auzu billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Xaadim Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di leen baalu àq di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu ñu ñëpp ñu jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha ibnu Cheikh Mul Basir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp di nuyu Sëriñ Moodu Mbend Faal mu maam Cheikh Ibrahima Fall ak njaboot maam Cheikh Fall gépp di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ti wér di nuyu ji ki nga xam ne mooy borom dëkk bi sëñ am di loo di délégué de quartier ñi koy ñaanal yàlla mu yàgg di di nuyu bu baax njabootu maam Cheikh Ibrahima gi nekk ci dëkk bi te nga xam ne dañoo ànd ak liggéey bi ci njiitu sëñ Moussa Fall ak sëñ Cheikh Ngounda Fall ak njabootu maam Cheikh Fall gépp nag di nuyu loog sëñ Fallou Lo ci njiitu imaam yëpp suñ tuddee sëñ Fallou rek dina yóbbaale imaam yëpp ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax di woo mboolem daayir yi nga xam dañoo nekk Thiès région de Thiès bépp muy kuréel. muy njàngu rajas bàyyi kenn ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne moom la ñu amal mu bisu gàmm ci pinc maam Cheikh Maam Fall di ko di toll ci ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne ñu ko amal foofu kon ñoo ngi woo ñëpp kon yaakaar nañ ne nañ daan wuysee daan ko wuysee dañ ko wuysee incha allahu taala mboolem daayira bàyyi ñu kenn ku lim da ngay jum waaye bàyyi wuñ benn daayira bàyyi wuñ benn jànkatu rajas benn bàyyi wuñ benn jànkatu durus ñëpp lañ soxla ci baas bi ndax noonu lañ ko fas yéene incha allahu taala muy tax taxsimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi istiyaadul minnati li muxlisim asami noonu ko sëñ Tuubaa waxee noonu ko fas a defee di soññ nag daayir bi nga xam ne moo ko aaye muy diiwaanu ma naayilu saafi la diiwaanu ma naayilu saafi ñu ngi leen soññ bu baax seen pastéef ak seen teewaay ngeen gën a jàpp ngeen ko daan defee lu ngeen defoon daaw ngeen fexe lu def lu ko ëpp ndax sëñ Tuubaa kat amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ñoo leen siyaar bu baax di ñaanal nag suñu xalifa bii fi jóge mu sëñ Saliou Touré ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na gisee ak sëñ Tuubaa yàlla na ko sëñ Tuubaa teral ko moom suñu jër ñu ngi koy yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di sof suñu nuyoo rek ci nuyoo jëwriñ ñi nga xamante ne jaar nañ fi léegi di sëriñ Cheikh Sylla di nuyu mbooleem murit yi nga xamante ni ñu ngi dégg kàddu gi rawatina ñi nga xamante ni dañoo féete fii ci gox bi ci Thiès di fas yéene ñëw rek ci li nga xamante ni. mooy programme bi nga xamante ne noonu lañ fa yéenee dundale gàmm gi nga xamante ni euh, suñu mbokki waa diwaanu Manaahilu Saafi fas yéene nañ ko taxawal te ànd ceeg daayira yi nga xamante ni sëriñ May lim na ko léegi ci ndorteel gi euh, programme boobu nag moo fas moom lañ fa yéenee leeral nga xamante ni dinañ tàmbali programme bi ginnaaw suñu jullee timis ba pare. ci njàngum alxuraanul karim eh, suñu jogee ci njàngum alxuraan met dinañ tàmbali njàngum xasida ci kuréel yi nga xamante ni ñooy kuréel yi bokk ci kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy taxawal gàmm gi muy kuréel deux bu makaarimal axla kuréel deux bu tasawdu subaan ak kuréel trois bu tasawdu bu sëriñ sëriñ Mamor ak kuréel deux bu safinatu amaan ñoo fas yéenee tàmbali liggéey bi ci njàngum kuréel ginnaaw loolu it suñu noppee waxtaan wi moo ci toftalu nga xamante ni ki koy amal muy imam Serigne Moussa Wade mooy fas yéene amal waxtaan wi ginnaaw su waxtaan woowu jeexee ni nga xamante ne noonu lañ ko doon taxawale rek noonu lañ koy taxawale ci li nga xamante ni moo gën a siiw ci ni sëriñ bi daan gàmmoo mooy ñetti kuréel yi nga xamante ne dañ ko fas yéene amal genn kuréel gi di jàng jazbu genn kuréel gi di jàng muwaahibu geneen kuréel gi di jàng muxaddimaat sëriñ Ousmane Diop xasida mi nga xamante ni moom it mooy fas yéene jàng Barzanjine bi nga xamante ni moom mooy accompagner loolu nga xamante ni moom la kuréel yi war a yëkkati su ko defee it ginnaaw loolu it su kuréel yi doxalee ba fajar gi am na ay xasida yoo xamante ni ay xasida yu mawlud la yoo xamante ni sëriñ bi bind na ko moom la ñuy àggalee programme gi kuréel gu ci nekk am xasida goo ci jël ngir àggale ko li nga xamante ni moo des ci liggéey bi ginnaaw suñu jullee fajar ba pare it fas yéene nañ maanaam dolli ci njàng moo xamante ni dañ koy toftale kuréel yëpp àndandoo ci ngir ñu tëje ko ñaan gi kon loolu mooy li nga xamante ni mooy programme bi nga xamante ni fas yéene nañ ko doxal ci guddi gàmm gi su ko defee xam naa ni dañuy jël kàddu gi rek jox ko ba siiru Dieng moom mi nga xamante ni mooy woote ci turu daayira yooyu su ko defee su ñëwee dina ci gën a mën a yaatal bu baax a baax jërë ngeen jëf. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. faman yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu lxada faxtariman wa xastimi barke borom tuba barke maam sa ibrahima fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyo bi sama kilifa yu tedd yi nga xamante ni ñoo jiitu ci jataay bi mu mel ni suñ tuddee suñu jëwriñ sëñ Cheikh Sylla danañu mën a yóbbaaleel ñëpp ñu ngi nuyu mboolem koo xamante ni rek bokk na ci liggéey bi di sant bu baax ci tawféex ji nga xamante ni am nañ ko muy bokk ci ñiy taxawul ci Touba liggéeyam bu màgg bi ndax kenn ku ne xam na ni gàmm moo ko daan defal boppam kon suñ amee tawféex ni ko sëñ Cheikh Sylla waxe sànq ñu fekke maanaam ñaar fukki at beeg lu topp kon loolu tawféex ju rëy rëy la ci ñun ñoo ngi koy fàttali it ni ñu ko daan defe rek te sëñ Malick waxee ko noonu ni ko sëñ Tuubaa daan defee ñuy woo nag suñuy mbokki taalibe jiital ci kuréelu safar ci njiital sëriñ Boubacar Diop di ci teg kuréelu làmp ci njiital Baye Amdi Touba Ndiaye di ci teg Majmahun Nurayni fii fawaay di daare ni Touba ci njiital sëriñ Xaadim Fall di ci tegit Majmahun Nurayni bi lëkkale élèves yi ak étudiants te Serigne Saliou nekk ca bopp ak ñam ca àndal ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp di ko yëgal it Majmahun Nurayni Touba Xasaayit Touba Thiès Serigne Ndiaye Guèye ne ca bopp ba mu mel ni suñu tuddee bopp fédération yi yooyu dana mën a yóbbaale ñëpp ñu ngi leen koy yëgal comme ni ñu ko daan defee fii ci péncu maam Cheikh mi di ko yëgal suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo wër gox bi ginnaaw bu daayira yi jàllee bu ci mel ni suñu baay ca Yacine Diop ak suñu bàyyi Ngouda njaay ak ñoom ñi nga xamante ni saa su nekk ñoo koy ànde ñu leen ko yëgal leen ko fàttali di ñaan li sëñ Tuubaa deeyaale ci gàmm yàlla nañu dal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk yi ku topp jataay bi rek ginnaaw bi ñu dégloo njàngum Serigne Ousmane Diop mu am solo moomu. ak Serigne si la jëwriñ diwaanu Manaahilu Saafiya ci woote gu am solo gi mu woote woo kilifa yi tàmbalee ko ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu bokkal nekk ci dëkk bi naka noonu sëriñ Bassirou Dieng dawaayir yi mu woo yëpp ak kilifa yi waaye naka noonu Serigne Malick Diop mi nga xamante ni moom moo doon gaaral programme mu gàmmu gi ni ma ko waxee ñuy ñaan rek lépp loo xamante ni am nañ ko yéene. yàlla defal ñu tawfiix bañ àgg ci ak jàmm ñu def ko te defe ko ni ko sëriñ bi bëggee muy tanzimuhu bi sunnati kon nag woote bi mi ngi noonu ñuy sàkku képp kuy dégg suñu kàddu ak foo man di nekk nga ñëw ànd ñun ci guddi gu mag gi nga xamante ni sëriñ Tuubaa ma waxoon ni képp ku ko tewe su ëllëgee kenn du la isaab yowmal xiyaam fa kullu man qad xadara mawlida afdaril wara falaa yuxaasabu gada inda xisaabil mufximi kon képp koo xamante ni bëgg nga ñu dox sa diggante ak bañ laa xisaab na nga fexe ba na nga teewe guddi gàmmu rawatin nag ànd koog waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital Serigne Modou Mbenda Fall waaye ci jataay diwaanu Manahilu Safia ak dawaayir yi nga xamante ni ñoom la ko seqal diggante Tazawudu Subaan ak Tazawudu suban bu Serigne Mamoor ak daayira Makaarimul Axlaax ak daayira Safinatul Amaan loolu lépp nag képp koo xamante ni bëgg nga koo topp ñoo ngi lay ñaan nga topp ko ci ak waa Majmahun Nurayni bi nga xamante ni ñoom lañ fas yéene àndal ren jii muy Majmahun Nurayni TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu madadtu bil muxtaari lillahi yada ومد لي منه الردى والأقيدا دعا مدادي وقلامي للهدى كوني خديم من حياتي هدى